del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu li ñu mën a jàpp ci coow li nga xam ne moo am foofu ci jam ñaajo ba Wally Ballago Seck mujjugul yéeg daal di presté lii lañ ci mën a wax moo di ne waali turam sax nekkul woon ci liste artistes yi nga xam ne programme woon nañu leen fête bi nag nekkoon na fête bu neex foofule ci jam ñaajo ci talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2022 bi ñuy inauguré stade bu mag boobu boobule ci jam ñaajo nga xam ne léegi ñu ngi ko tuddee maître Abdoulaye Wade mu nekkoon fi ancien chef d'état ñi fa teewoon nag bare woon loolu ci ay chef d'état yoo xam ne ñu ngi fii ci Afrique waaye itam ay anciens joueurs internationaux ba ci sax ay gan yu bàyyeekoo feneen ak feneen ngir rek mën a teewe li di xew-xew bi leen moom mii di Faramareen bii di Wally Ballago Seck ñàkk yéegam ci kaw seen bi ba daal di jouer indi na li nga xam ne moom moo di bu rëy rëy ñëpp nag jàppee ko benn baat muy sabotage bu ñu sukkandikoo ci source bi ñu jot a am moom mi di Wally Ballago sekk ci jëf ji nga xam ne jëf nañ ko ko ñu bari dañuy faral di wax ni milieu showbiz bii de nekk na milieu boo xam ne milieu bu doy waar la lu nekk di nga ko ci gis lu nekk itam dinga ko ci daj waaye yow mi ciy nekk yow yaay dëgër ay wagg maanaam yow yaay nekk nit ku dëgër këcc ba doo xool lu lay yàqal ba di la déstabiliser di la delloo ginnaaw Wally Seck nag daanaka li ëpp ci public bi moom lañu doon xaar mu joué ndax nag waaj na mbir mi ci anam ba mu gën a rafetee waaj na ko ci anam bi nga xam ne ci la ko ñëpp xamee moom mii nga xam ne moo di le prince des Faramareen daal di way ab wayam boo xam ne ànd na ci ak ñu bari ci artistes yi mu jaral ko itam mu dem ba ci boobu boobule def fa benn publicité ngir woo mbooleem askan bi loolu nag tax na ba public bu ci bari. daal di ñëw mu ne teewee si ak yéegam ci kaw seen bi moom mi nga xam ne nag moo di Wally mu jiwul yeeg donte ne sax waaj na ko waaj taay bu ama am solo noonu mu ñëwee ci pub ci stade bi daanaka mën nañ jàpp ne 15 heures fekk na ko mu dugg si ci stade bu Diamniadio bu Abdoulaye Wade bi mu fa ñëwee ci 15 heures nag coow tàmbali ndax ba mu duggee rek ci la nit ñëpp tàmbali topp ko waali waali foo tourné di dégg turam. caméra yeeg ñëpp daal di wëlbatiku ci moom moom nag di doomu con Ballago Seck bi 15 heures daanaka ba timis na muy weesoo ba guddi gi dugg mu ngi toog di taaxirlu ñu daal di koy dugal ngir mu mën a def prestation moom ak artistes yi mu ko seqal ñàkk a ci liste bi nag mbir moomu lee ci source bi ñu sukkandiku moo di ne Wally bi mu wayee wayam ba noppi dugg ci studio defar ko da ko yónnee kii di Youssou Youssou Ndour nag bi mu jotee ci bi la ko daal di transféré Ndiaga mi nga xam ne moom la ñu ne moo jéeroon mbirum régissant bi foofu foofule ci stade bi donte ne sax am na ay naar yu mu ko seqal waaye moo nekkoon njiit la lu mu fa bëgg mooy am lu mu fa bëggul du daal di am. moom mi nag ginnaaw ba mu jotee ci boobu lépp son moom Ndiaga Ndour toogaat na ay fan di déglu waaye amul benn retour bu koy firndeel ni moom kat son moom bi daal dinañ koy dugal ci liste bi ngir nag mu war a mën a prester Macky nag di président de la république moom dafa sàkk woon ne Youssou Ndour Ndiaga Ndour mi mbirum sonorisation bi ak liste artistes yi war a prester na fexe ba daal di ciy dugal képp ku ci war a dugg. bokk na ci ñooñu le Wally dafa sax insister ne Wally Seck na ci dugg ci ni mu gën a rafetee Wally nag ngir yombal mbir mi tax na mu ne moom du def live dafay def playback ànd ko ak ay mbokk artistam ñu def benn son boo xam ne ñoom ñëpp ñoo koy bokk ngir mën a gagner temps bi loolu mooy jubluwaayu Prince Faramareen bii di Wally ba taxoon na mu daal di dugg studio def boobu lépp morceau ginnaaw loolu nag Wally ni mu ñëwee woon ci stade bi ak na mu fa yëngalee taxul mu woy ba tey ginnaaw bi mu yéegee ci kaw seen bi ci source bi ñu mën a sukkandikuwaat muy beneen source bu ñu jot a jëlee ci suñu beneen naataangoo taskatu xibaar moom nag dafa daal di xamle ni kii di Ndiaga moo daal di joxe ay instruction xamle ni bu Wally yéeg mukk ci kaw scène bi ñu mën cee nemmeeku nag ñoom ñii di waa Prince Art seeni artiste daanaka ba ñu ñëwee ñoom ñëpp yéeg loolu firnde gi ci am moo di seen petit gàlle xale yi bu ñu ñëwee yéeg nañu te Jayla ma nekkoon ca wet ga moom ñu ngi ko bàyyi woon foofu mu taxaw daanaka taxaw na lu yàgg waaye ba tey mujjuwul yéeg kenn wu ko kaay kenn wu ko wow na wala tooy na te pourtant xale yi seen petit gàlle yi ñoom ba ñu ñëwee rek dañoo daal di yéeg wàcc dem seen yoon ñibbi doxiwaat seen yitte. mu mel ni kon Prince Art seeni artiste ñoom amuñu fa benn jafe-jafe waaye ku bokkul ci seen biir dafa mel ni jafe-jafe bi daal dinay tàbb ci sa kaw ba ci kii di Fally Ipup moom sax bi nga xamee ne war naa jouer dafa mujj daal di dem yoonam ndax ba tey jii ab sonam ak waxtu ba mu ko waroon a jouer dafa daal di weesu loolu nag moo dal kii di Wally Ballago Seck bi mu waree yëg rek ci lañ jël beneen son dugal ko ci soowam moom nag mu taxaw daanaka quinze minutes di taaxirlu ngir ñu indil ko bi mu war a way ànd ko ki naataangoo artiste am yooyu le mu taxaw taxaw kenn indilu ko lim bëgg ci la daal di wàcc seen bi di wër ci stade bi pour firndeel ni moom kat geddul waaye dafay taaxirlu ségam taxaw na quinze minutes xëy na su jékki-jékki wër stade bi tuuti danañu daal di tudd aw turam mu war a ñëw nag preste ngir mën a def li nga xam ne moom moo ko fi indi woon. mbir moomu la nag jur polémique bu rëy a rëy ñëpp di ko ñaawlu di wax ni jëf jooju la di rafetluwuñu ko ci bis bi ni mel ni bisu feet di bisu déggoo bisu nekk benn bisu génn lépp loo xam ne dafa nekkoon ci xol yi njaganduur nag mi nga xam ne ñu ko ciy tudd boobu ba léegi moom mii di njaganduur ñi am na ñoo xam ne yëkkati nañu seeni téléphone daal di koy woo moom nag bi ko gaay woowee li mu tontu ci aw làmmiñam moom moo di ne nagan ma ci keccat ba set ci wecc ndax métier mi ñu nek moma ma mayul may def yenn ni ginaaw ba nak may ma may def yenn ni ak di wax yenn ni dimbali len ma rek te yalla rek tax ma len koy ñaan ngeen bañ ma dugal ci yi nga xamne ay detail la yo xamne amul benn ndariñ mom nak lolu moy tontom moom yor ndul beugul di ci addu beugul sax ku ko ci tuddu mba di ko ci duggal ndax mom neena nekul ci yoy ci xaan li nak tax na polémique bi takku loolu Wally Ballago Seck nag di ndeyu mbill gi ba tey àdduwu ci mbaa mu wax ci mbaa sax mu sant kenn mu daal di ciy àddu moom nag daal di nay tourner boobu la page ba daal di programmer leneen ca kanamam ndax nag milieu sow bis bi géej la goo xam ne kenn mënul tee sa morom tànk te it seentum asamaan la du mat a buuxante te itam géew la boo xam ne ku mën sa moroom rek danga koy dal di duma foofu dal la ñepp di xaar kenn ku ci ne waaye du xeexante ak a yàqante mbaa di iñaanante ak a bañante jërë ngeen jëf yéen ñi Dakar TV premier portail people et politique du Sénégal Où leen di abonné di bës notification ngir ñu leen di notifier saa bu vidéo yu am solo yu mel